Sénégal Burkina Faso Sénégal moo ceinture rouge Burkina ceinture bleu ñu ngi noonu ci demi-finale yi 65 kilos ndaysaan ñu ngi noonu Sénégal Burkina Faso ndaysaan 66 kilos ndaysaan ñu ngi noonu 66 Sénégal Burkina Faso. ndaysaan jàppante nañ mbot na jàpp na ko daan na daan na moom daal xale bi ñàkk na caaxaan xale bi daal ñàkk caaxaan laa ko tuddee ndaysaan ndaysaan première victoire pour Sénégal ci wàllu demi-finale bi ba tey Sénégal ceinture Ngor ñaax Burkina Faso ceinture bleu arbitre bi sifflé na Sénégal am na benn ndam ci premier combat bi wala ci premier jongante bi ñu ngi demaat ci deuxième jongante bi ngóor Niakh senegal ceinture rouge Burkina Faso bleu ñu ngi noonu ñu ngay lewaatoo dara xewagul jàpp na ko ngóor Niakh senegal génn nañ saako yi kaay leen waat kaay leen ndeysaan kaay leen baa ngi noonu di waaj a sifflé laaj na joueur pare nañ arbitre bi sifflé na ndeysaan Sénégal Burkina Faso Sénégal ceinture rouge war la ginnaaw Burkina ceinture bleu ndeysaan ñu ngi noonu Ngor Ñaax moo ci nekk noonu mooy deuxième combat bi ci wàllu 76 kilos daw na jëli ko mu bañ ndaysaan gaañu na wala déet gaañu na déet ndaysaan suñu mbokk burkinabé bi dafa gaañu ci épaule. arbitre baa ngi leen woowaat na ñaari ndaanaan yi sifflé waat na Sénégal Burkina Faso senegal ceinture rouge Burkina bleu ndaysaan ñu ngi noonu ci wàllu 76 kilos bi ndaysaan Burkina ak Sénégal ndaysaan Burkina Sénégal Sénégal ngóor ñaax ndaanaan ndaysaan mi ngi noonu Sénégal ndaysaan ak Burkina Faso ngóor ma ngi mu ngi ko bëgg a jàpp ndaysaan ngóor a ngi ko bëgg a jàpp Sénégal Burkina Sénégal Burkina jël na tànk bi Ngor jël na tànk ba Ngor jël na tànk ba ñu ngi koy waaj a mbot bañ na da ciy génnante wër na ko ndomba Ngor ñaax wër na Sénégal Sénégal yanu na ko ba ci kaw dóor ci suuf teraanga lii lañu ñu xam teraanga làmb moom yanu ba ci kaw dóor ci suuf rek lii daal mooy teraanga allez les lions du Sénégal <laughs> réewu teranga la yëkkati nañ sa loxo dinañ la may nga lekk may la nga naan bu arbitre prime ñu yenn ba ci kaw dóor ci suuf ndeysaan ñu ngi toll ci demi-finale yi ci wàllu 86 kilos bi ndeysaan muy ngóor ñaax wala gànja faama ndeysaan ma nga noonu ngóor ñaax moo daan léegi gànja daw na jëli ko génn na saaku yi indiwaat na ko ndeysaan moom Gandia Fama arbitre bi sifflé waat na ñu ngi noonu Sénégal 2 Burkina 0 ñu ngi noonu Sénégal am na ñaari ndam ci demi-finale bi ndeysaan par équipe bu suba def compétition par individuel ginnaaw suba ñu def finale bi ndaysaan boole raay yëpp teg par équipe ak par individuel ndaysaan lii mooy ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan ma ngay daw ma ngi koy yóbbu ma ngay daw da ko bëgg a jàpp ndaysaan gànja faama bañ na fàqat na ko wër na ko ndombo da koo bëgg a buddi waa ji bañ na Burkina bañ na da koo bëgg a dóor dóor na ko ci suuf daan na ko Sénégal Burkina 0 yanaw ti ko ba ci kaw dóor ci suuf xam ci teraanga teraanga ci kaw rek <laughs> teraanga ba ci lan bu seqee compétition bi di ñaan ba ci kaw dóor ci suuf déedéet teraanga bi moom ci biti waaye bu arbitre ne prime ah yanu dóor ci suuf rek a fi xew ndeysaan xale baa ngi noonu ma nga noonu ndeysaan ma noonu ndeysaan ma nga noonu ñu ngi noonu ndeysaan arbitre baa ngi waaj a siffler Sénégal deux avertissement Burkina arbitre bi na Sénégal Burkina Faso ndeysaan ñu nga noonu daw na jëli ko daan na sénégalais Sénégal gaañ na ndeysaan Sénégal 3 ordinateur daan na kilo kilos ndeysaan catégorie 100 kilos ordinateur ndeysaan ma nga noonu di jom ci 120 kilos baa ngi sifflé sifflé na 120 kilos Mouhamed Bousso alias Boy Faye bu jàkkaar naa face au bleu. Ndeysaan Sénégal qualifié na final. ci compétition par équipe. Ndeysaan Mouhamed Bousso ñu noonu. jël na daan na. Ndeysaan jeex na. Boy Faye daan na Sénégal qualifié na en finale ndaysaan neuvième édition ndaysaan tournoi de lutte africain CEDEAO Sénégal qualifié en finale mu des deuxième demi-finale bi